Euh, tey dañuy comme niñ ko tàmm di defee at bu jot dañuy sargal suñu ndongo suñu xale yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ñun ñii def cycle ñetti at ñii def cycle juróomi at ñii am licence ñii am master tey nag ñu dajale leen ñun war a toll ci à peu deux mille personnes ñu ne leen dañ leen di sargal li ma ci gën a neex nag mooy parrain biñ leen tànnal parce que dañ leen tànnal nit koo xam ne tiitar la ci Sénégal ñu koy wax le général du Keïta mu suis chef d'état-major général des armées Je suis ambassadeur du Sénégal en Allemagne Je ki également l'école des officiers du Sénégal donc tey ñu nous pour euh, won ko ndax ñu mëna jang ci mom ndax ñu mëna jël ci mom gis dégg ngeen wax valeur yi conseil yi mu jox ak yi nga euh, secret armée. muy rigueur discipline organisation et moom mu ñëw yokk ci courtoisie donc looloo tax tey vraiment ñu am mbégte lool lool lool lool ci li mu nangu nekk parrain ou promotion bi vraiment ñu ko ciy gërëm di ko sant mu boole ci nag mobiliser vraiment tous les officiers quasiment du pays pour cette fête ñu ko ciy gërëm bu baax ba parce que groupe yi généralement bu ñu ubbee antenne fu dul fa ñu fa ñu soqe ko dafa am yu bëri day day sooxe mais ñun loolu dañ ko teel a moo tax biñ koy ubbi dañoo jël ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ñun te yàgg fi lool ñu jël leen jox leen antenne yooyu pour ñu diriger ko parce que ñoom xam nañ ñun suñuy suñu suñu suñu exigence comme ni niñ koy wax moo tax tey boo xoolee antenne régionale boo dem bu ISM da nga yaakaar ne ci siège bi nga nekk parce que benn la même programme yi la ñuy jàngale li ci ëpp sax enseignants yi jàngale seen seen seen seen cours ba pare dakaar ñooy dem

amul fu ñu bind ci moom Thiès la jànge mbaa Ziguinchor la jàngee étudiant ISM la donc loolu dafa tax vraiment ñu ci góorgóorlu pour que ku ci ne foo munti génne rek boole ci sax tey dañuy wax ñi nga xam ne nii nekkuñu Sénégal parce que gis ngeen ci groupe bi am na ñu jóge Chypre am na ñu jóge Canada fekk cérémonie bi ñooñu dañuy formé wu en ligne te mësuñu gis école bi mais standard yi ñuy jàngee fii lañ leen di jàngale en ligne donc loolu day loo xam ne daal dañ ci bàyyi xel bu baax baax duñ la former rek bàyyi la dañ lay former di top topp di la xool parce que xam nañ ne suñu responsabilité aussi dañ ko engagé ci formation biñ la jox donc ñu ngi ciy jéem yombul parce que comme je dis bu ñu école yi ñooy créer emploi école créewul emploi économie mooy créer emploi école day créer day préparer nit ki pour que mu mën saisir opportunité boobu mais opportunité bi opportunité bi économie bi moo koy donc bu réew mi rek ni am diplôme yëpp mëna am liggéey donc dañu war aussi jéem a xool sur le plan économique nan la réew mi mën a defe ay jéego pour que développement économique bi mën a porter les diplômés mais du inverse bi du càggan ne da nga créer nit ñu euh, former étudiants yu bëri rek que tout de suite économie bi day dox économie bi bay taxaw ñoom ñu ñëw jàpp ci mu gën a jóg donc loolu aussi ñu ciy tàggat suñu ndaw yi li ma ci yokk mooy dañ leen di tàggat aussi lu bëri ci entrepreneuriat mooy nga demal sa bopp

yombul mais aujourd'hui on est là avec notre masseur donc bah très bien les cours sont très bien organisés cours c'est bien organisé donc euh, ça va quoi ñu ci bu baax a di len euh, wax ñuy am jëm bu xam bëgg et xam donc ñu def bu ci parce que mu day fay day mais day fay. administration ISM vraiment dañuy épauler ndax euh, du année yépp moy yombo, dina am année compliqué surtout donc ils sont dañoo ko waxtaan dañuy dawal compréhension bu bari sur yenn points donc dañuy épauler bu baax pour ñu avancer suñu waaw sama sama la ndax yombul ci euh, pour pour jàng pour am diplôme bi tey donc mbégte la vraiment kontante la di di di jaajëfal corps professoralu ISM bi yëpp di jaajëfal corps euh, personnel administratif bi di jaajëfal tamit sama famille samay collaborateur ni ma ànd jàngal euh, ci cursus bi exécutif MBA waaw jàng bi metti woon na ndax ñun suñu cursus dafa particulier dafa de cursus boo xamante ni pour professionnels yi la donc week-end yi lañ doon jàng donc pour dire que da ngay semaine bi yépp nga jàng weekend bi tu vois donc durant ci benn at ci diiru benn donc loolu yombul woon mais alhamdulillah ah, ak professeur yi ak personnel administratif ak famille bi tamit ñu ci jàpp ak camarade yi tamit donc yàlla def na tey am nañ ah, suñu diplôme exécutif MBA. sama rakk yi ñi bëgg a ñëw jàng ci école bi dama leen di dama leen di encourager dama leen di soññ ci ISM ndax ISM e ekol bu baax ekol école boo xamante ni professeurs yi euh, dañoo qualifié xam nañ seen xam-xam na ci lu ñuy def donc euh, personnel administratif bi tamit accueillant na dinañ la jàppale ci processus administratif yi vraiment maa ngi di ñaax di leen wax ñu ñëw ISM e bu dee bëgg nañ jàng bu dee soxla nañ xam-xam ñu ñëw ISM e dinañ am li ñu